rafet lu ngeen di toppee suñu chaîne bi ngeen informé wu lépp lu xew ci réew mi ak ci bitim réew tey nag seen actu du jour dañ koy daal di doore rek ak ki nga xamante ne moom moo di Pod muy Pape Omar Diop ak kii di jabaram di Lisa ñoom nag gannaaw coow la nga xamante ni sax juboon na seen digg ba ñu nekk sax naan dañoo dal di séparé woon rek daal di nañuy gisoon sax ab publication boo xamante ni ñoom ñaar ñu ngi ca dekk loolu nag mu ngi nekkoon sax ci seen anniversaire u doom bu góor bi waaye nag mu mel ni coow dal di nay jibaat rek ci bile couple ndax kat dañoo jàpp ne conflit dafa daal di am rek ci diggante kii di Pape Omar Diop Diop ñu gën ko xam ci pot ak kii di soxnaam di Lisa gannaaw ba nga xamante ni sax moom soxna si dafa dal di a rek ci page Instagram am ay texte yoo xamante ni sax dafa mel ni rek kuy dal di dànkaafu rek ki nga xamante ni moom moo di jëkkër ji mel ni sax ay kàddu yooyu nga xamante sax dal na koy fësal rek ci bile post mu def ci Instagram dafa dal di jëm rek ci borom këram gii di pot loolu nag dal di jur coow ba ñu euh, doon wax sax seen digg mu mel ni dara amu ci ndax dañoo jàpp ne li nga xamante sax moom moo di Sow dafa jubaat seen digg mu nekk ci diggante kii di Pape Omar ñu gën ko xam ci Pod ak kii di soxnaam si di Lisa beneen sëy bu yëngu muy bu Amina Sale ak kii di borom këram nekk sa xap Mbàkke Mbàkke gannaaw benn weer rek ñoom ñu daal di marié woon dañoo daal di divorcé ci loolu nag jëkkër ji daal dinay génnoon rek def ay révélation jëm ci li nga xamante ni sax moom moo waral ñu daal di tàggatoo loolu nag bokk na rek ci di wax sax naan kii di jabar ji di Amina Sale dafa daal di defoon rek lii di chirurgie jëm sax ci sein yi waaye tamit bokk na sax ci li nga xamante ni moo tax ñu daal di divorcé mu woy woyal sax naan kii di Amina Sele da doon woy rek di jëfandikoo lii di drogue ak xaritam waaye tamit di andi sax ay góor foofa ca kër ga loolu nag daal di tax sax ba moom mënatul supporter li ni mel tax sax benn weer rek gannaaw mariage bi ba mu amee ñoom ñaar ñu daal di divorcé waaye nag kii di Amina Sele xaarul dara ngir daal di génn andi ab tontu ci sortie boobu nga xamante ni sax kii di borom këram daal dina koy def muy wax a naan chirurgie boobu muy wax loolu nag dara amu ci ndax moom dafa daal di amoon rek kis ci sein bi looloot waral sax mu daal di def rek li ni mel jëm sax ci li nga xamante ni euh, gàttu kàddu yi nga xamante ni kii di borom këram daal dina ko yëkkati moom Amina Sale daal di weddi ba mu li ni mel jëm sax ci li nga xamante ni nekkoon na mariage boo xamante nii euh, mën nañ wax ne sax ne kii di borom këram defal na ko lépp loo xamante ni moo ci war waaye nag li jaaxal ñëpp euh, benn weer rek la mariage bi daal di waaye waaye nag kii di borom këram xaarul dara rek ngir daal di génn andi ay leeral sax ci li waral divorce bi waaye mu mel ni nag Amina Sale nag nangul déggul li ni mel ndax dafa daal di génn rek andi ab réplique weddi ba mu set li nga xamante ni sax kii di jëkkër ji daal dina koy wax ci Wally Ballago Seck la ñuy wax moom nag daal dina yetteew sax ca kër way juróom bu jigéen loolu nag nekkoon rek ab occasion anniversaire ki nga xamante ne moom moo di Fata nekk doom ci Bougane Gueye Dany waaye nag lañ cee mën a nemmeeku mooy kii di Wally Ballago Seck ak Bougane sax daje nañu ci bile kër daal di feete bu baax a baax anniversaire ki nga xamante ni jarbaat la ci moom nekk doom sax ci Bougane Gueye Dany waaye dañuy des sax ci Wally Ballago Seck moom ba tey rek ak action yi nga xamante ni sax daf koy def jëm rek ci wàllu dimbali nit ñi euh, ki nga xamante ni sax moom mooy soxna ay doomu Serigne saaliw euh, moom nag euh, gannaaw ba nga xamante ni sax kii di Wally Ballago Seck moom moo ko daal di yóbbu màkk rek mu daal di siyaare ji ci loolu nag gannaaw nganale ba nga xamante ni sax moom soxna Aida daal dina koy amal mu daal di gërëm Wally Ballago Seck loolu nag gannaaw ba nga xamante ni sax jàpp na ne ki nga xamante ni moom moo di Wally Ballago Seck dafa dëkkee rek di def lu baax rawatina sax teewaayam foofa ca màkk Wally Ballago Seck moom moo ko waral ndax moom moo ko daal di yóbbu rek ci bërëb bu sell ba ci loolu nag moom muy gërëm Wally Ballago Seck rek bay jooy loolu nag ci nganale bi nga xamante ni sax moom soxna Aïda mu Serigne Saliou mu ngi ko doon amal kii di yaa awa rasul moom nag euh, daal dinay amoon sax ab euh, l' accident waaye nag plus de peur que de mal daal dinay feeñaat rek amal ab vidéo sax gannaaw si accident bi xamante ni sax amoon na ko wax ne sax ne nga xamante ne moom moo di faar ya dafa demoon waaye nag mën nañu wax ne elle se porte bien ndax kat daal dinay génn amal ab vidéo ak mu mel ni sax moom daal nay tane bu baax xanaa di ko ñaanal rek yàlla gën koo yokku tan waaye nag wax ci leneen muy mariage kii di jaw ki moom nag nekk na influenceur boo xamante ni ko présenté fii ci Sénégal récemment rek gis nañ ko ci cérémonie CAF Award bi mom Madiaw Ketchup ba bokkoon na ci ñi nga xamante sax mën nañ wax ni ñoom la ñu accrédité won mom Madiaw Ketchup nak mu melni dafa daldi di amal rek li nga xamanteni mom modi mariage des ci mariage yi ba tey rek waaye nag euh, li nga xamante ni sax moom mooy dégâts yi taw bu bëri bi daal di def ba nga xamante ni sax dëkk yu bëri rek dem fa dina doon lu jafe ndox yi mu mel ni nag Thiès ab marié la ñu daal di gis sax muy xuus rek ci ndox mi ngir daal di rejoindre rek li nga xamante ne moom moo di domicile conjugal ma ci loolu moom la ñuy gis noonu nekk loo xamante ni sax gannaaw taw yu bëri nga xamante ni daal nay sotteeku ci yenn ci ay dëkk rawatina foofu ca Thiès sax ngir daal di eh, utali ah, fa nga xamante ni sax moom moo di kër kii di eh, borom këram. coowal fata lañuy wax ak nit dof mu mel ni nag fata dafa daal di génn rek amal ay kaddu jëmal ko ci kii di nit dof moom nag muy wax na nag kii di nit dof sax defu fi loo xamante ni benn rappeur defu ko fi waaye nag mu mel ni sax kii di nit dof dafa daal di génnoon rek wax ne ki di fata dafa daal di am ab complexe rek jëm ci ñi nga xamante ni moom di anglais ndax kat dafa jàpp ne di fata mënul wax ñaari kaddu rek te dugalu ci ay mot anglais loolu nag mu jàpp ne sax ab complexe la di fata génn na rek daal di andi ab jëmal ko ci kii di nit dof mu jàpp ne sax ne nit dof lepp lo xamanteni rek def nako fi ay rappeur def nañ ko fi ba mu melni nak le torchon brûle entre Fata ak kii di nit dof kii di directeur bu télévision Futur Média Ndiaga Ndour lay wuyoo moom nag daal dinay jël la ñetteelu soxna loolu nag gannaaw ba nga xamante ni sax ab ciit sax lañ mën a wax ne moom la organiser woon rek kii di ñetteelu jabaram nag dal di teew ci kër yaay ja mu mel ne nag kii di yaayu Ndiaga Ndour di mama Ndeye Soxna Mboup daal dinay génn wëyal ki nga xamante ne moom moo di ñetteelu femme bu Ndiaga waaye tamit feccal ko loolu daal di nekk ay image yu rafet loolu waaye nag bu ñu jógee ci Ndiaga Ndour ak mariage dañuy daal di dem rek su muy accident bu métti boo xamante ni dafa am rek booy dugg foofa ca bayaax mu mel ni sax ab moodu moodu moom moo ci dal di ñàkk bakkanam ak jabaram ak ñaari doomam ci ab l'accident bu métti boo xamante ni sax dal day am rek ci booy dugg foofa ca yaax ci leneen la ñuy wax foofa ca Mbour ca Saly ab paasax lañ mën a wax ndax mu ngi am lu toll ci cinquante ans nekk sax am sax lu toll ci ñetti doom moom nag kaw teef lañ mën a wax ndax da doon luwe rek li nga xamante ni sax moom moo di néegam ay prostituée loolu nag ci mille francs rek la leen ko doon luwe waaye nag gannaaw ba nga xamante ni sax daal nay janoo rek juge bu tribunal grande instance bu Mbour la mu yëkkati nag ay kaddu muy wax sax ni nga xamante ni sax noonu la dund gi méttee moom moo taxoon muy def ni mel ndax xamuloon benn yoon sax ndax dañuy tere li ni mel ndax euh, xaalis boobu nga xamante ni euh, moom la leen doon loué daf ci daal di dundal rek ñi nga xamante ni moom moo di doomam mu mel ni sax moom dafa daal di regretté rek euh, ci kanamu juge bi nga xamante ni moo nekk foofu ca tribunal grande instance bu Mbour di wax sax naan moom xamuloon benn yoon ne dañuy tere lini mel ki di pap Mamadou Seck nek ko xamanteni sax dañ ko doon lim rek ci wàllum force spéciale gannaaw ba nga xamante sax arrêté won nañ ko rek yobbu ko ci pavillon spécial mom nak dafa rëccoon rek waye mu melni nak mom moom Pape Mamadou Seck tegaat nañ ko loxo foofa ci Mbàkke mu melni nak nag gannaaw ba nga xamante ni na lu yàgg ba sax ñi nga xamanteni ñom ñoo di tak deram ñu ngi nekkon rek di ko wër moom Pape Mamadou Seck nag mujj nañ ko tegaat loxo. ki di PDG bu sen actu tv.com com moo di Cheikhouna Mbacké daal dinay samp rek ab laaj bu am solo loolu na rek ci ñi nga xamante ni sax noonu la ñuy yuuxoo kii di njiitu réew moom nag mu daal di wax sax ah, daal ne ah, ñi nga xamante ni sax ñoom la daal di dénk rek ngir ñu amal seen yile campagne mu daal di wax sax ndax dañoo am rek ab bàyyandiku jëm ci yenn ci ay domaine ñu mën ko jàppee sax ci wàllum communication ndax kat dafa jàpp ne kii di njiitu réew mi ah, jox na leen lépp loo xamante ni rek ab moyen yu ci war la waaye nag laaj bi samp mooy ndax kat loolu ñu leen jox dañ ko daal di def seen poste wala sax ndax dañoo nekk rek di nax ki nga xamante moom moo di njiitu mi di liggéeyal seen bopp loolu nag ni ah, moom mi nga xamante ne moom moo di Cheikhouna Mbacké nekk PDG bu SENactu TV daal dina koy laaj rek jëm ah, la ñuy attaquer di njiitu réew mi di Macky Sall jàpp ne ne ah, ñi nga la daal di dénk rek ngir ñu amal seen campagne ci yenn ci ay gox goxaat koppar yooyu ñu leen jox dañuy liggéeyal seen bopp wala sax dañuy daal di def rek ci seen poste waral fu ñu génne rek ñu daal 远离诱惑。 jeexale ak tàggat yaram ku ne xam ne nag équipe yu bëri ñu ngi ci seen pré-saison di amal seen jongante xaritoo ni ki démb nag Chelsea bu Kalidou Koulibaly daal dinay nërmeelu rek ci kanamu Arsenal loolu nag gannaaw dóor yu métti ya nga xamante ne Arsenal dóor na leen ko muy ñeenti bal ci dara ci loolu nag Kalidou Koulibaly nekk doomu Sénégal loolu sax nekk matcham bu njëkk foofa ca Chelsea kii di coacham nag di Thomas Tuchel daal dinay génn rek wax sax ci performance yi nga xamante ne Kalidou Koulibaly daal dina koy defa moom sax mu jàpp ne kii kii di di Kalidou Koulibaly gannaaw sax dóor yu métti ya xamante ni dóor nañ leen ko moom bokk na ci ñi nga xamante ni sax ñoom la ñu gënoon a ràññee ci terrain bi moom nag Thomas Tuchel yi liy kaddu la daal di yëkkati rek jëmal ko ci seen défenseur bu yees bi nga xamante ni daal dinañ koy jënd muy doomu Sénégal bi di Kalidou di yëkkati ay kaddu yu am solo lool jëmal ko rek ci défenseur bi muy wax sax naan Kalidou Koulibaly était le meilleur sur le terrain mbokk yi safoon doon ñu teewlu li lañ leen daan loon seen acte jour di leen ñaanal jàmm di leen wax ngeen abonné suñu chaîne bi te laal cloche notification ba ñu raté suñu information jërë ngeen